te amagoo ko di wut ndomb ak tànk amagoo ko di wut barke seexagoo ne jamono yooyu koo am mooy sa nit <laughs> waaye ne boo xasee am barke moom dootoo xam saw nit boo takkee ndomb ak tànk dootoo xam saw nit ndax ña la gën a jege sax ñaare ña la gën a sori ñooy gën a nekk saw nit moo tax ku wàcc sa nitu démb doo dese dara nit moom day téye nitu démbam te yow li ne ci yow dafa am solo lool ndax nit dafa am yoo xam ne su ko manqué loo ca bëgg a def duutu fa ne muy jom kooku moom mooy li nga xam ne moom boo ko xasee manqué kenn mënatu la def ci yow dara dara lu mat waaye boo ko amee nag lu waaye bëgg a def ci yow rek day yomb jomay lépp borom daaru daana wax ne kum génn ci yow dara desul ci yow ci lu baax daana wax ne ah, waaw waaw xanaa xamuleen ne capital sax day nekkuti milliard capital sax laaw nekkuti milliard ñu ne ko ah li tax mu ne bala ngaa xam ne nekkuti milliard nga gis ñi ko am ñi ci ëpp kenn doon newu ko ci sa baay ñi ko am ñi ci kenn doon newu ci sa baay mu ne te boo gisoon sa baay di ko wut ba am ko di génn àdduna bàyyi kook ay doomam te amuñu jom bu tëddee fu suuf balaa yàgg li leen fàgguloon lépp danañ ko ñàkk waaye su fekkee sa bàyyi dalaa bàyyeek ak jom te bàyyi wulaa ki milliard sax génn àdduna te bàyyi ay doomam ñu am jom borom daaru nee na bu tëddee fi suuf balaa yàgg li li mu waroon a fàggul ay doomam yëpp danañ ko fàggul seen bopp daal ne kon jom ay capital ñu ne amu ne mooy ngor mooy lislaam mooy diine mooy nangu mooy bañ mu ne lu baax lépp jom a koy sàmm <laughs> daal di wax na bu la nit dee xas te bëggoo wax lu ñaaw dee ko déglu rek soo waxee waxaa wax ba sonn te nga bëgg a fayu nee ko amoo jom ndax ñàkk jom it moo jur lu doy waar yëpp moo tax yow da nga am jom boo xasee am jom nag amuk teele bi ca la bokk bëgg say bokk ca la bokk bëgg lu baax ca la bokk am looy bañ ca la bokk loolu yëpp da cee war a bokk nag fintool loo baax baax baax te amoo looy bañ sax baax des na loo pit baaxul baax ba ëpp déet baaxul tabe ba ëpp déet lépp dafa war a yem moom dara ba yee sa waaye de moom daa baax ba ëpp yee man fee laa koy teg waaw nit day yem te daje ci yow yëpp noo ngi ñaan yàlla na daje ci say doom ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul te yàlla bàyyi la fi ba fi kanam